باتر و قلعی دیکھوں سکرک مجھ جوئی یہاں والای مک میری کوئی تک جوئی دونوں تچا خواد ایک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن منہ کچھ لولو ببین بے سی اللہ نکو ننگا ہے ننگا ننگا ہورل نک لیکن اسلام یا اللہ دکل کھلول نکو انشیر حاضر تک اللہ قربینا خوال سک جیگ گنگا کم نیو لگنا جگہ نک لگے محو علیم نابی صلی اللہ علیہ وسلم برم نیا ناہو سمک بقی نکلائی دیف منہ کو دنگا ہی دیف ایمیتاسیوں حوالین mu am benn gàtt nag mu rey ko nag dal di woo Quraysh yëpp ñu dajee nag ñu dal di lekk ba suur nag naan ba mandi mu ne waaw yonente taxaw Muhammad jóg taxaw sallallahu alayhi wa sallam na lu ngeen wax ci man ñu ne ko yow jàmm rek lañ xam ci yow ku baax nga mu ne lu ngeen xam nag su ma leen waxoon ne xur wi ay waxambaane tooya man ci yoo xam ne dañuy ñëw toj si Makka ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko yow mosuñoo natt ci yow fen loolu ñu wax ñu gëm mu moo xam ne bu keroogee su ngeen da ngeen ci dugg rek tey ah abu taalib abu lahab baayam ne ko tabban lakka ya muhammad ali hasa daawtana tuskara ñaan la ndax li nga ñuy xooyee looloo tax alquran itam ba mu dikkee di fayu ne tabbat yada abi lahabin yàlla fayul ko ne ko yonente bi tooga rek man maa lay fayul sallallahu alayhi wa sallam tabbat yada abi lahabin moom moo gënoon a bañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te moo baayam ñoo bokk bàyyi naka noona itam jabaram ki nga xam ne mooy ummu jamil moom la yàlla nattoon mooy xamaaletul xatta bi dafa daan dem ci àll bi doomi buur la kat waaye tariw dafa nay maanaam jabari buur bi la waaye dafa nay ba nga xam ne nangu wutawut mbindaan moo daan rootali boppam got bi muy gàjju bi muy gàddu nii ci mbaggam dilooti dafa mujjoon ñuul ci kaw mbaggam mi ne mooy fi jiidee am xam lu mu masadin yàlla ne loo xam itam mi ngi am buum goo xam ne dafa def marqué boo xam ne nay rek ko tax di def nanguwut a fay kenn moom bopp ma lay moo muy dem tamit ci àll bi itam di dog ay dég di ko teg ci yoon wi yonent bi jaar sallallahu alayhi wa sallam ngir dég jam yonent bi loolu rek la ci jublu moo tax borom bi ne am maalitul xatta bi kooku fi jiib dee ko moom moom Abu Taalib moom Abu jabaram jooju ki nga xam ne mooy ummi jamil léegi nag ñu nekk ci loolu nag bi loolu amee nag ah yonent dafa daan jëkk bu guddi sallallahu alayhi wa sallam mu dem ca kaw hajji woon di xoote ñu ne Muhammad sa ngay xoote de ci guddi lan la su ñëwee wër ko mu ne yàlla ma yónni ñu ci ñëpp maanaam ci nit ak jinne <coughs> sallallahu alayhi wa <coughs> am na ñaari doom yu jigéen mooy Zeynabu mooy mooy Ummu Kalsoom mooy Ruqiyatu Abu Lahab boobu nga xam ne moo def loolu am na ñaari doom yu góor moom itam mooy Xotbatu ak Xotaybatu yonentu may ñaari doom yu jigéenam ñooñu ñaari doom yu bàyyi taxam yooyu muy Xotbatu Xotaybatu kii mu may ko Ruqiyatu kii mu may ko Ummu Kalsoom keroog ba tabbat yadaa abii lahabin wàccee nag seen bàyyi xoolee na reen Muhammad xas na ma yàllaay Muhammad ji xas na ma léegi ñaari doomi Muhammad ñi ngeen doon denc sama xarkanam xaraam na ci yéen lu mooy dangeen ngeen a dem ba ci Muhammad ngeen fase doomam yooyu tafli ko ci xarkanam xotti mbubam xam nga ne loolu tooñ la nag ah ñu ñëw nag gën a tegaat yi nag ñëw ci Muhammad ne ko fase nañ sa doom yi daldi tafli Muhammad ci xarkanamam xotti mbubam nag tafli di xàggu tax ci xarkanam yonent dafa wàññeeku rek dal ci kawam rek soppeeku jàngoro yu xonq ji Muhammad ne ko yal na la yàlla kenn ci xajam yi mu lekk la lii jubadi jubadi nag xam nañ kay Muhammad mu ne ah Muhammad ñaanal na ma de te xam ngeen ne ñaanal Muhammad du jaas mukk léegi nag ñuy dem saam di jéggi nag biñ demee ba ca àll ba nag ñuy fanaanal nag mu ne ah yéen ñëpp xam ngeen ne Muhammad ñaanaloon na ma te moom ñaanam gi du jaax léegi daal li ma ci xam mooy da ngeen di def seen sëf yi wërale lekko wërale ko ba mu jëm ko pax mi nekk ci biir man ma nekk ci biir yéen ngeen tëdd ci pegg bi lu ko mooy rek yàllaay Muhammad ji gis nga lim ba ñaanaloon ah ñu def loolu bañ jëkkee ba guddi gaynde ñëw foon nit ñi kum foon rek romb la fa kum foon romb fa ba ñu ci biti jeex mu ne ñoom koos ca kaw sëf ya wàcc ci biir pax mi fekk fa ot batu mu di ko fiti fiti muy yooxu naan wallaay moo amatan ca makka mi ngi may rey fii <clears throat> kooku mooy <clears throat> doomi ñaari doomi Abu Lahab loolu xamee nag yonent ngi woote ci makka sallallahu alayhi wa moo tax benn bés bidalam googu ci la Abdullah ibnu Mas'ud waxee woon ne ñu ne Quraysh dañ maanaam jullit yi dañoo toog ne waaw kan moo ñemee dem ca Kaaba ga mu jàng fa alquran te loolu Abu Jahl di bañ Abdullah ibnu Mas'ud ne man Abdullah ibnu Mas'ud dafa gàtt ba nga xam ne bu nit ñi toogee bu taxawee tolloog ñoom mu dal di dem nag jafandu ca jaaru Kaaba ga nag dal di jàpp nag commencé ne rahmaanu allama alquran xalaqa al insana allama al bayan ci benn riwaaya benn riwaaya ne fusilat la doon jàng waaye bi loolu xewee Quraysh na dëll ci kawam di ko déglu ba mu yàgg ñu ne li Muhammad di wax lay nettali fii ñu commencé ko dóor dóor ko dóor ko ba xotti noppam bi nag muy jooy nag ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko gis nga ni ma boo jaal def mu ne ko mu yàl rek moom joof na sa nopp yow yaay dëgg baatam kenn mënta dégg loolu sa jamono booba bindkat bi ne Jibril ñëw di ree yonent bi ne ko waaw Abdullah ibn Mason ñu ngi bugal ni yow yaa ngi ree mu ne baax na da nga ci xam dara moo moo tax keroog keroog xare badar abdoulaye ibnu matal moo dëgg boppam yi mu boppam mu abo jaal boobu ni mu xale ñëwee incha allah bii loolu xamee nag abo jaal nekk na ndofam boobu nag di fitnaal julli nii nag ah loolu nag métti leen nag ñu na léegi daal nañ def délégation dem gis yi aboo mi nga xam ne mooy bay yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ñëw ne ko aboo taalib dañu ñëw pour waxtaan yow li xew mooy muhammad daf ñuy dofloo dofloo suñu kër yi bàyyi loolu mënuñ léegi daal dañoo bëgg nga digal ko mu bàyyi li muy wax mu ne waaw baax na danaa def loolu naxante ñoom bañ dellu ñu dem toog waxut ak dara yoon woowu ñu jékki ba mu yàgg ñu dellu ñaar yoonu ñaareel yoonu ñaareel ñu ñëw ne ko li xew mooy li lay wax mooy lii mënuñ cee wéy Muhammad tank di ñu xas di xas suñu yàlla yi di ñu dofloo di dofloo suñu kay bàyyi léegi daal na bàyyi li muy def rek wala ñu ñu def ci moom rek ah Abu Talib nag commencé jaaxle nag

kenn du àgg si yow lu mooy man damaa tëdd dee ñu normal ma moo tax ci la ko waxoon ne ko fasda bi ma tuumaru li sa borom wax yëpp da nga na nga ko wóoral na nga ko dëgëral tey de innaa kafaynaaka mustahzi'iina loolu ay nit lañ yoo xam ne ñu nga nekkoon Makka mu nekk di Walid ibnu Muqirata Xaasi ibnu Waayil Laso ibnu Mutalib Laso ibnu Abdi Yaxoosa ak Xaaris mm, ibnu ñoom lu mat juróomi nit ñoo xam ne dañoo nekkoon ci makka rek ñoom la yàlla wax naan la si ne yajhaluuna maa laahi illaa naaqara fa sawfa ya'lamuuna ñoom dañoo jubadi lool lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam façon yi lor boo xam ne kenn mësu koo gis waaye jëmmi jamono rek benn bés kenn ci ñoom naati ibnu waayil ne dafa ànd ak si ndawam di promenade ci makka romb benn xettkat boo xam ne xasiti xettkat yooyu benn jam ci maanaam takk ci mbubam mu ne rus naa sëgg di dindi xasit woowu ndax mi ngi ànd ak ndawam si mu jël kaanam bi rek dóor ko ci nda ndekete jam na ci tànk bi mu daldi lug rek ci la doxee dee kële itam dëgg moo ko jam mi ngi ànd ak si ndawam mu ne rus naa jékki di sekki dëgg gi ndax mi nga ànd ndaw si di sëgg loolu gàcce la ci dam mu jël kaan bi rek dóor ko ci dëgg gi damm ci biir la ca des daldi lug ci tànk bi dee xaalis ibnu xays jibril moo ñëw rek wal ngelaw li ci koom rek su ko muy tëb muy dal di daanu di fàdd xeer yi ba dee ñoom kii itam biitab tekki moo ko amee rek boo xam ne amul dara lu muy taxaw dafay yol ci waxtu ni ñoom ñëpp noonu lañ dee moo tax yàlla ne ko inaak kafay naakal mustahziina ñoom dañ la dañ lay yant naa la fegal ñi nga xam ne ñoo la yéegi sallallahu alayhi wa sallam yonentu nekk ci makka nag di xoote ci makka nag ñu di ko weddi muy xoote ci makka ñu di ko weddi ba benn bés nag gis nga def na mujj sax bu nekk sallallahu alayhi wa sallam toog fiñ ko toog di ko wër muy xoote benn sàmm romb sàmmi ba ngoon jot ca suba la reyoon ab mbëtt rendi ko noonu ñuy rendi mbëtt di ko def jël benn bant lonk ko ca gàddu ko ba ngoon jot nag mu ñëw romb yonent bi fi muy waadee nit ñaa ko wër mu waaw lii lan la ñu ne ko benn waaye de mooy yonent dal di ñëw taxaw xool yonent ne ko yow loo wax nga ne mu ne ko yàllaa ma yónni mu ne ko man de bala ma laa gëm mbëtt mii ci sama gannaaw nga xam ne ca suba laa ko reyoon mu gëm la mu ne ko soo mbëtt mi gëmee nga mu ne ko waaw waaw mu ne ko yaa babbu yow mbëtt mi mu ne labbaka yaa say na man xaafa al mahsar yow kii yow mu ne huy naa la yow mi nga xam ne yaa yaay taarab ki nga xam ne mooy taarab pincam yàlla ah waaye taxul arab yi bi gëm rek tere rukkaanatu ku bari doole la woon nga xam ne bu taxawee ci deram nag bu tooy ca digg ba ay waxambaane ñëw di xëcc der bi dafay dagg ba àgg ci tànk bi waaye tànk bi du yëngatu ngir dooleem mën naa xeex ak junni nit moom kenn benn sàmm ci peg Makka nag yonent ak si ma nag sallallahu rukaanatu doo gëm mu ree na man ma gëm la mu ne ko waaw mu ne ko man de duma la gëm xanaa ñu bare soo ma daanee rek ma gëm la mu ne ko su ma la daanee nga gëm mu ne ko waaw yonent ne ko sëggal sallallahu alayhi wa sallam ba mu sëggee ba ko yonent xenoo ba dóor ko ci suuf dafa ne kii doole ji mu xamee xam naa ne du doole yi doomu aadama waaye taxut mu gëm mu ne ko bala mën a gëm garab gëlee dana buddee ku ñëw ne ma yow yaay yonentu yàlla yàlla la yónni su garab gi ñëwee def loolu da nga nangu mu ne waaw mu ne garab gi ñëwal xuy si ma garab ga buddee ko banqaas yi féetoo suuf ren ya féetoo kaw muy bëf bëfi ba ak ne ko xuy naa la yow yow ki nga xam ne yaay sa nga woy njëkk a woy mujj yonentu ne ko loo mu ne ko xanaa mu dellu ca fa nekkoon ba taajaat fa mu ne ko garab gi dellul garab gi delluwaat sampuwaat fa mu nekkoon mu ñëw makka ne gis naa waa joo xam ne képp kuy njabar moo la daqa njabar mooy Muhammad ibnu Abdullahi xam nga ne kooku di alquran di wax ne wa ma tuxni laayaatu wan nuduru an qawmin laa yuminuuna ak kaw téef moom du tax kenn ku mën a gëm koo xam ne yàlla digul la jàmm rek tey day loolu la yonentu nekkee foofu sallallahu alayhi wa sallam yéefari na commencé di bugal jullit yi képp ku gëm yàlla rek ñu bugal la ba Bilaal mii nga xam ne mbaa yàlla la woon Abubakar Sadiq moo ko njëkkoon a moom jamono boobu Umayya tam Nuqayl moo ko moom ah, bi loolu amee sallallahu alayhi wa sallam Bilal sangam daf ko daan wax dafa gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan jékki ba naaj wi tàng ci Makka nga xam ne xeer yooyu dana tàng ba àgg ci juróom fukki degré ci jamono bii ñu toll ñu tëral ko ci kawam xeer yi mu téen wan jant bi gannaaw wan jant bi kanam ci xar kanamam ñu dukkat aw xeet teg ko ci dënnam naan ko da nga weddi muhammad sallallahu wa ñu alag la mu naan ahadun ahadun la ko yonent rombe sallallahu alayhi wa ne ko ahadun dana la wallu ci loolu la nekk naka noonu tey xam xamaar xamaar itam ak yaasir baayam ak sumayatu sumayatu jigéen la woon moom gëm yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam Abu Jaal ne ko xam naa ñiy weddi yonent yéen du ci bokk yéen jigéen ñi ndax taaram bi ko nopp waaye yow daal da ko wuute yow جل بن کا کج دب کو چپے ہم رکبم فلچے کے ناو چلنی بیا لاخرہ من جک سید چلولو کو کو موی سمے تو کنا کم موی یا ہے ہمار یا سیر سندل نن کو چی بن سفرا دگرس جبا کو چ مو فیتال بوبا خم نے کو کو یالا ری کو رنگ وای مو دیوان نا بن بس جو دیکو بوگل دیکو بوگل با نا خم نے سن نا نیو کو ودی محمد وخال سی مام لو نیاو دے سان مو کو چ لام نیم رنگ نیو بای کو مو نیو جوی نیو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ne ko jàmm bi xalaku na mu ne ko lu xew mu ne ko lañ doon bañ yow wax naa ko mu ne ko nu mu fekk sa xol mel nag mu ne ko sama xol a nga fees dell ak gëm yàlla mu ne ko suñ dellootee di la bëgg rek dellul def lu moomu def wax lu mel noonu moom la yàlla yox naa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil imaani سفك دين لا أنت سفك سقل فسجل الجم يا الله نجلا وخلوا له قم نيو جمو كسق تسبك من نشيدس هندلا يوم تلا من يسعير وهاي سفك كنغ فسجل سقل كنغ فسجل الجم يا الله مو إلى من أكويها وقلبه من معين بلي ما نقول لا يعزب دفن آه، لول نعني نك جنك بي لولو هامينك خرايسنا بني بس نيتوك شبايا مكبرك يسين محمد عن توك من كنس الله عليه وسلم أتبتونه xaaral ma dem dem ca Muhammad male laaji ko ñu ne ko waaye demal mu dikk nag dal di toog ci yonent ne ko Muhammad sa mbit mii jaaxal nañu te sonn nga ci te yow comme askan nga ku baax nga léegi dañoo bëgg nga wax ñu li xew su fekkee xalal nga bëgg ñu dajale xalal yi yëpp jox la nga gën a riis yi ñun da nga noppi su fekkee da ngaa bëgg a falu buur ak bëgg a càng donga la ci xiir ñu fal la ngay suñ sang su fekkee da ngaa bëgg jigéen ñu dajale jigéen yi gën a rafet nga ndax nga noppi yonentu di ko xool ba mu pare sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko pare nga mu ne waaw mu ngi tàllal ñaari loxo bi ci gannaaw nag sukkandiku nag di xel yonentu di xool yonentu bi yonentu da lay jàng xaamim tanzilul kitaab min rahmaani rahim mu di ko xool rek ba mu yàgg nag mu jóg yonentu ne ko demal sallallahu alayhi wa sallam ba ma xagsee rek ci Quraysh rek gis nga Quraysh ni ñu jubaree waaye xam nañ yonentu bi ñu ne ko xar kanam bi nga demee woon dikkee woo ko yow da ngaa jeng mu ne déedéet waaye wax ji ma dégg tey Mouhamad mii wax ji dund la am nay ren ci suuf te am na bànqaas te wóor na ma ne du waxi doomu aadama te dafay kowe faw te dara du ko kowe ñu ne ko yow da ngaa bëgg a jeng moo tax yow Mouhamad njabar na la rek mu ne njabar ñu ne ko kii du dara lu may ab jabar mu ne jabar man xam naa jabar kii li muy wax du jabar ñu ne ko kii waykat la mu ne du waykat de man xam naa li muy wax lii du waykat man kenn daquma a way xam naa bahru yëpp waaye kii du waykat ñu ne ko lan la nag yow da ngaa bëgg a jàng naa dara sax njabar la yàlla digul ko jàmm dellowaat na ca ñu daldi jékki nekk ci melo woowu aboo jaal ak ndofam ji façon bu nekk mi ngi koy def moom aboo jaal ngit lor muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn bés Quraysh léegi daal nañ def lenn nañ def délégation Madina ca yahood ya ñoom ñi nga xam ne jàngoon nañ téere yu njëkk yi laaj leen Muhammad mii lim nekkee dëgg la wala du dëgg ñu def seen délégation dem bañ demee laaj yahood yi na leen léegi su ngeen demee laaj leen ko ñetti yëf su tontoo lépp kon duut ab yonent su tontuwut dara duut ab yonent bu tontoo lenn li bàyyi bi ci des nag kon yonent bi yàlla la mooy da ngeen koy laaj roxo ak ki nga xam ne dafa doon dox diggante penku ak xarfu ak laaj ko ay xale yoo xam ne bu yàgg dañoo demoon ñoom la yàlla wax ci saaru kër fi kaanoo min ayatina ajaban ah ñu dikk ne si léegi buntu am na digal nañu ne ñu laaj Muhammad ñeenti ñetti yëf su ko tontoo rek ñu xam ne moo am moom yonentu yàlla la su ko tontoon ñu xam ne duur yonentu yàlla ñu ñëw nag ndajeeg Muhammad na ne ko dañ lay bëgg a laaj lii xale yu sànkoon bu yegg seen xibaar loo ci roxoo itam loo ci xam naka noona itam ñu laaj ko euh, ñi nga xam ne mooy asaabul mooy asaabul ak roxo ñu wa laaj ko loolu Muhammad ne leen bu subaa ma tontu leen te waxut insha allah musiba dikk na nag ñu toog fukki fan ak juróom jibril ñëwut ñu ree waxtu nekk ñu naan Muhammad seytaanam sa bana ko dafa nañu woon bu subaa danañu tontu tey fukki fan ak juróom ah waaye Muhammad mii li xam ngeen ne nekkee du dëgg léegi-léeg Muhammad yëg ci doyu rek ne dafay daanu pour xaru Jibril ne ko ne bul xaru yaa nekk ci dëgg sa borom dana la dimbale waaye daal mu nekk ci melo rek bee yonent bi ñëw nag ba yàlla jox ko ndigal nag ci la ko waxee woon nag ne ko léegi wala taqul li shay'in inni faa'ilun zalika qad daan incha allah bul waxati mukk bu subaa ma def dara te waxoo incha allah jullit waa ko wax loolu lépp loo bëgg a wax mbaa nga bëgg koo def boo lëgee na nga wax incha allah ñàkk a wax incha allah rek. moo taxoon way gi taxaw ñàkk a ñëw rek sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li nga xam ne tey moo xewoon ñu sonal leen nag ñu dajee ne nañ fexeel nag Muhammad ñu ne Muhammad nag moom kenn mënu koo fexeel ndax borom a koy wattu ñu ne waaye ñi ko séq ñu ne Aliyu nañ ko fexeel ñu ne o kooku jàmbaar la joo xam ne wàndente la kum bàyyi say bët nga bàyyi ay bëtam jàmbaar la te dafa foog fu mu toll mi nga ànd ak jaasim Xadijatu ñu ne kooku xalalam jee koy wattu Abubakar ñu ne xalalam jee koy wattu Hamsatu nag booba gëmagul yàlla waaye bañ ba ñuy wax loolu booba gëm na yàlla ñu ne kooku moom jàmbaar la waaye dafa naagu kum gis rek foo ne ne moo la man gis nga jàmbaar ju naagu neex naa fexeel bi loolu amee nag taam surtout ci juróom benn at la gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko na saaba yi léegi na ngeen gàddaay da ngeen dem xabaas bu rek fa boo xam ne du tooñ duñ tooñ fa moom mooy najaasi mm, ñu dem fa moom nag gàddaay Usmaan ibnu Affaan ngorob yonent ci la bokkoon Roqiyatu jabar doomi yonent bi ci la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam ndax Ousmane ko takk yonent bi may ko ko te booba fa gàddaay ànd ak moom bañ demee nag ca gàddaay ga bee xabas najaat yi dajal dalal leen waaye daal makka fitna ji bëri lool benn bés Omar ibnu Xataab di dox ci makka ba guddi mu dégg yonent yi jàngal Alquran booba xéefar la daf daan dóor sax benn jaamam bu jigéen ne pour mu weddi Muhammad bu sonnee wut ko koy dóoral kooku moo Omar ibnu Xataab gi nga nem jàmbaare bi loolu xamee nag Omar ibnu Xataab déglu yonentu muy jàng sallallahu alayhi wa sallam mu di ko déglu ba mu yàgg mu ne man daal xam Muhammad mi lan la rek li muy wax ni le ay ah, du dara sax waykat la rek naka waykat yu njëkk ya bu yàggee mu jeex tombeeg yonentu ngi jàng naan wa ma huwa bi qawli shaa'irin qalilin ma tu'minuun mu ne moo way lëf li lan la kii dee boo ko abala من ما هو بقول الساهر قليل ما تكاين قليل ما تذكرون دو بغاورة من ما واي لف لله لنك من التنزيل من رب العالمين آه قلم كماتي نك نوينك مقام لنك ليدو چاغانك موي دوخ سي بن مباك مدي مباك نك مدي مكاي فاطمه بنت قطاب جيغينم لا مهم نا جكر دافا دوب دافا دافا جانغ نيوم كوج گمان يالله ني دافا جانغ دوغنا سي الاسلام گم يونتبي صلى الله عليه وسلم جكرم اتم دوغنا سي الاسلام yonente nag buñ gëmaan yàlla dafay boole ñaar ñoo xam ne dañuy dem nekk ci kenn koo xam ne moo leen tane ñuy bokk di dund calam xam ndax ñuy wéttalante di dimbalante gannaaw fu leen fekk buggal leen léegi nag Omar ibnu Xataab dox ci benn makka nag fekk yonente ma nga doon ñaan sallallahu alayhi wa sallam ne yow yàlla yàlla nga dimbalee diina l'islam ci kenn ci ñaari Omar yi Omar ibnu Xataab ak Omar ibnu Haasim mooy Abu Jahl ah bi loolu amee nag benn waaye ne ko Omar ibnu Xataab ak la ngay def nii yëpp mbit mi dugg na ci sa néeg mu ne lan mu ne Fatimatu bintu Xataab jàng na dugg na ci diina yi mu dem nag fekk ko këram nag fekk leen ñu nga hub buntu ba nag di jàng mu fëgg buntu ba nag ñu tiit nag kan la mu ne Omar ibnu Xattaab hubil leen ma ah ñu dal di hubbi nag tiit nag këy di ñaanoo xam nag mu tasaaroo nag mu ñëw toog li ngeen di wax lan la dal di mm, neew dégg naa Fatimatu da ngaa dugg ci da ngaa jeng mu ne ko waaw mu dal di ko daane mu dal di bi mu ko daf koo pes deret jigéen ci moom mu am kersa nag gis nga góor bu dóoree jigéen deret jigéen ci moom bu dee nit ku am kersa تم کو دانے جبرجستان ہمارے سوتے ہمارے لال jox leen ma di leen doon mu ne ko yow duñ la ko jox ndax sobe nga ba nga juddoo ba tey mosuloo sangu jaxabata laaya mosoo ilal mu taaroo naa mu ne suma sangu ngeen jox ma ko mën a waaw fekk ay kayit a ngi rotoon foofu mu ko fekk ñu ngi ci bind taaha ma anzalna alayka alquran li tashqa illa tadhkiratan liman yaxsha tanzilan mimman xalaqa al-arda wa samawati al-ulaa ar-rahmaanu ala arshi stawaa Omar ibnu Xataab mënoon naa jàng bindkat la woon ba mu ko jàngee rek yëf yi dugg ci xolam mu ne yàlla na Quraysh dee lii la ñuy daw daal di ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu an muhammad rasulullah ñu kontaan nag jàmbaar la yoo xam ne ñu mu ne wan leen ma muhammad ñu ne ko soo fekkee duñ la doo ko déggal dara ci lu mu sib ñu wan la ko boobu yonente daf daan bu ci daaru abir ibn abi arqam mook saabam yi ñu ne ko foofu la nekk mu ne mu dem nag fekk leen fa sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ba jub leen rek ñu ne omar a ngi ñëw de omar a ngi nii di ñëw te boobu ñëpp dañ koo weg nag ñu kër kër kër kër kër Hamsatu ne fekk Hamsatu dugg na ci lislaam ca démb ja ca barki démb dafa ñëw ak jàmm dara du xaw su fekkee ñëwut ak jàmm nag jaas jooju mu gàdd ci la koy reyee ba yonente ne baleen ko rek sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ba agsi rek yonente ne ne baleen ko yonente fëgg ko ci dënd poñe ko ne ko xamar doo day bala dikkaloon ñu njëkk ñaa dëkkal la mu tiit lox ba kar kar kar ba daanu nag ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan kooku mooy Muhammad sal kooku mooy ah, ah, Omar ibnu Xataab radiallahu anhu fekk ca ba ci démb ji nag Xamsatu dafa daan dem rëbbi bu dikkee dafay jaar ci ma kaaba gi wët kaaba gi nuyu Quraysh yëpp tey nag yonentu su jootoon sallallahu alayhi def loolu wala xoqbatu ibnu abi muayta wala aboo jaal mu benn jileem gu kiij ga mooy loolu ànd ak doom ji juddu ñu sànni ko mu nga nëbbaam ñetti fan mu dem jóor ko yonent bi fi muy sujjootee sallallahu alayhi wa sallam ba yonentu mën ta jóg siggi ñu wax ko fatimatu doomam moo ñëw didi ko ko xas ko nag mu daldi am satu nag ba mu bàyyee ko ca rëbb ma nag ñëw nag ab benn jigéen ne ko bu ko doon see ne ko wallaay am satu boo gisoon see abo jaan lim def doomi mbokk mi tey kiij gu nëb gi nga xam ne moom la gileem wasi noonu ci pegg kaaba gi moom la jël sotti ko yonent bi ñu ñëpp bokk di rex di xew xew nag moom cot colloog bokk jot ko nag mu ñëw nag bu ñëwaan bu waree kaaba gi daf leen di nayu ñoom ñëpp tey nag mu waaxu rek jëwale aboo jaar rek fekk mi nga amee xala ci loxoom mu dóor ko ko ci bopp ba xala gi dagg bopp bi nàcc nag ni ñu buur war ko yow da ngaa dof li ngay def ñu naan la xanaa da ngaa jéng mooy buuram nag mu ne leen lu tax muy muy def Muhammad mi lim ko def da ngaa jéng mu ne maa tey jéng kay yéen ku leen gën a dof kuy jaamu xeer kuy jaamu laata ñu ne ko mu ne leen ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna rasulullah léegi nag ñoom ñaar ñooy jàmbaari makka yi nag Umar ibn Xattaab ba mu duggee ci nañ julli sallallahu alayhi fan ñu ne ko fii mu ne lu tax mu ne ko amaguñ ndigal te amuñ doole dañuy nëbb moo ta mu ne ko xanaa duun ne ñoo nekk ci dëgg buñ dundee ak buñ dee mu ne ankay ah, mu ne xanaa duun ne Quraysh ñoo nekk ci fan buñ dundee ak buñ dee ñu ne ankay ah, mu ne lu tax ñu doon jaamu laa tak xosa ci makka di ko feeñal di jaamu laaw di ko nëbb Omar def loolu ca Kaaba ga radiallahu anhu jóg nag ñu def sappe nag bii sappe Omar ibn Xattaab ba ci nekk bii sappe Hamzatu ci nekk ñu nga naan allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa ñu nga jëm ci kaaba ga Quraysh si yëpp gis leen nag di leen seetaan ne waaye dëgg Quraysh dana jeex ñëpp danañ gëm Muhammad ñëpp danañ jàng ba nga xam ne am na ay jigéen yoo xam ne biir yu ndaw la ñu amoon biir yi dafa far wàcc rek ngir tiitaange ji ndax ñaari jàmbaar yooyu gëm nañ yonent bi loolu mooy li nga xam ne moo xew bi waa xabaste génn ak ne ñooñu ñooñu gëm nañ yàlla ñibbisi nag ñoom ñoom ña demoon ca gàddaay ka ba mu ñëwee ñu di leen dóor di leen bugal yoon te digalaay li ñu gàddaay sallallahu ba wa sallam bañ gàddaayatee nag ñu xamaat seen coono boobu ba tey woon ma am ci la bokk mooy ak ruqiyatu allahumma salli ala فاطر طاق وأم فالأم لأيمن ببداري بعد أم جميلهم منها بعد عاتق كلهن الأوالي ثم لمن رديات الأب القادم فاد قريش كل خيار ويكت بغا خمينة نك سابا يونتي نك ننجي جفا جفا يويو بدك عمر بن الخطاب دقنا الدين الإسلام نكدونا am sa tu itam dugg na ci dugg na ci diin al léegi nag ñoom ñu dégg ko nag ne dañuy del si at waaye bañ ñëwee fekk makka ab jafe-jafe lool nag di leen sonal lool yonentu digal la leen ñu delluwaat gàddaay moo tax Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu ne yow yonent bi yàlla bi suñ gàddaay bu njëkkaa doog ñun suñ gàddaay ak ñaareel dafa doog ñun mu ne gàddaay yi ngeen di gàddaay yëpp ci yàlla ngeen jëm ak ci man mu ne bon loolu doy nañu گدہ نک جم مکرم نہ جاتی جب ہر جمے نہ جاتی کو دے گے نک یہ ہے بل کر اب ہمارا فلم والے مولانا شکر ہمارا فلم والا کمنے ماملہ قوری سی ہوا بو تالت ne ko kii dañoo bëgg nga jël ko ndax xale bu am askan la te dañoo bëgg nga jël ko amee ah, ko te jox ñu Muhammad ñu rey ko mu ne leen yéen a ñàkkam xel ma jox leen sama doom ngeen rey ko ngeen jox ma seen doom man ma dundal ko loolu duma ko def rek loolu mooy li nga xam ne moo xewoon Ammaar ibnu Walid moomu nag moom la Amr ibnu Aas àndatoon Quraysh yebal leen nag bañ demee nag jël ay hadiya yu bari mooy der yi ñuy wulli ak ngegenaay yi ñu ne dañoo dégg na nag ñu waa xabas dañ koo bëgg buur bi ñu ne su ngeen demee wutal leen ko addi ak képp koo xam ne sës na ci moom ñu dem def loolu nag ñu dali leen maanaam yëgle yëglu ca buur ba da ko am na ay gan ñoo xam ne ñu ngi fi bàyyi ko Makka leen a yónni bañ ñëwee baat fi ci moom nag na jaas yi toog nag xoo interprète am bi ki nga xam ne moo koy lappatoo ne ko ñii dama bëgg nga wax ak ñoom lépp lu ñu wax nan ma ko wax lépp lu ma leen wax itam yow na ko wax bul ci wañ bul ci dolli léegi bi loolu amee nag najaasi toog saaba yonent toog xorey si toog ñi nga xam na tey <clears throat> ñoom lañ yónni woon najaasi de yéen ñii ana moo ci gën a jege Muhammad ñu ne ko Jaxfar Jaxfar ibn Abi Taalib mooy ki nga xam na tey mooy ki ko gën a jege yéen ñi sës fii bu ngeen waxee rek da ngeen ma kii di xoote diin al islam ngeen ne dafay fekk dañoo ñëw ne ko dafay xas suñ yàlla yi du xas suñ yàlla du xas doxadal di dok bokk di tasaare mbooloo yu mel noonu wax ko mu ne waaw ana ndax dafa masoon mbokk am ci ñoo xam ne ay buur lañ mu ne ko déedéet mu ndax mas naa xam ne nekk ci ñoo xam ne ñoo am alal lañ mu ne déedéet mu ne ñi koy gëm dañuy gëm bam yàgg ñu bàyyi wala mu ne déedéet moom koy képp koo xas gëm dootoo bàyyi mu ne mag ñi ñoo koy gëm wala gone yi ñoo koy gëm ñu ne ko li ci ëpp gone yi ñoo koy gëm ak jigéen ñi mu ne kon nag mbiram dana dem képp ko xam ne mas ngaa xoote sa mbir ña lay njëkk a gëm mooy ay gone ki jigéen te laaj naa leen ngeen ne dos cosaanu wut ci nguur cosaanu wut ci alal itam su fekkoon dafa